sëriñ Ablaye Tagué di borom kër ci soxna Mouminatou Kébé ni mu ko baaxoo amalee at mu jot bu ñuy waajal màggal Tuubaa gu mag gi dana dajale mbooleem jëwriñ ni nga xam ne ak mag ñi nekkoon ak sëriñ Saalihu Mbàkke indi leen ci këram gi nga xam ne moo nekkee ci Tuubaa Mbàkke ànd ak ñoom yendoog ñoom saafonte ak ñoom berndeel leen lépp di ak barkeelu ci sëriñam ba di sëriñ Saalihu Mbàkke loolee nag amal nañ ko ci le 15 safar dëppook samedi 2 septembre 2023 mboole magu taalibe yi nag kenn ku ne seede na seede yu rafet jëmee ci sëriñ laay Tagué ci ni nga xam ne noonu la nekkee woon ak sëriñ Saliou Mbacké waaye sant ko bu baax gërëm ko ci teraanga ji nga xam ne du dañ mukk di leen ko defal saa su ne rawatina bu ñuy waajal màggal Touba gi. man de fekkee naa fi yàgg sëriñ bi ñu toog mu ne mu mu Abdoulaye sëriñ bi ak ab yor-yor ñëw. ma ne ko suñu Ablaye daal ma nga ci lal ba mu ne ah moom nga daa war a egg si fekk boobu bi ab laax la togg ab laax la togg ñu jàkkal ko ko ci ci ci ci ci bool sax. ba mu ñëwee boof nee ba mu ma toog nee. ba bi no ba bi ñëwee ba sëñ def. ne Ablaye jege si mu jege si mu ne mu barkeelu ba noppi teg fee ndab li mu ne te ngaa yóbbale xott ndab li xott ndab ba fi mu toll ma ak moom am na lu mu yor de ci jënatu Mahwa mu ñëw jënatu Mahwa toog ñëw ci sëñ bi toog ba yàgg nu toog ba yàgg sëñ bi daal ne ah Ablaye daa tàng tey daa tàng lool sëñ bi dugg ci néeg bi bu mu duggee ci néeg bi su mu mel ni mbubb jox ñëw jox ko na ko kii de mën nga koy féexloo boo demee mi ngi moom de man maa ngi lay feeñal sax ma ne man maa ngi lay feeñal sax maa ngi lay weer waaye loolu lépp day lu ma teewee rek sëñ Ablaye nun waa kër Serigne Saliou nun sant nan la te itam dañ lay ñaanal te itam soxna si nga xam ne mooy soxna moom i kebe bi nga jàppee rek la la jàpp sëriñ bi daa boole ñaari mu di saara mu boole leen ndax Serigne Saliou moom moom laa dégg i gémmiñam man ñett nit laa ma si dégg mu tudd mu ne ñoom murit saadix lañu. ci mboolem yoonu murit ak li mu ko yor. dégg nga nee mu ne mu ne Moussa xam nga luy murit saadix ah ma ne ko ah déedéet man la xamuma ba ma wax rek laa xam man. mu ne murit saadix day yàggam di ndigal lu mu joxe xeeb ko te lu mu joxe fàtte ko. te bi seen mu yàggam dégg sëñ bi. loolu mooy murit saadix loolu nag mu ne mooy Ablaye Tage. ba am na bis boo xam ne sëñ bi dane ma man damaa bëggoon nga waxtaan ak sëñ Abdoulaye wa xam xamal ko ne nam daa def bu njëkk day baax na ndax damay bañ mu yàq dara ci ab liggéeyam da ay ay bis yu ne mu ñëw te bu dikkee nag lu bari la may jox waaw ba ma ko waxtaanee sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye ne ma ne ma loolu day kon tontu li muy demee mooy ba ma tàmbalee def loolu ak léegi laa gën a amug yokk waaw waaw ndax tabax jox na ma fi bàkk tabax naa ko te te te yëriwuma ci bor dara ba mu àgg ba ma ma sanc ko kon nag mel na loolu jig jig na ma loolu moom bu ma ko mënta du ma ko wàññi moom léegi sëñ bi la jàpp moo tax te xam ne ne sëñ bi jógu fi mu jàppee ne noonu di yokk loxoom kenn ku ne da lay woo di waxtaan ak yow xew-xew bu am mu jox la lam lay jox ni ko mu saa waxee nii da ko wax nii waaye waaye bëggul kenn xam ko sax da lay woo ci sa rek ne la maa ngi lay Euh, keneen la lay booleel sax mu yónnee la ñu ne la sëñ bi laa ko jox ci sa portable. waaw kon nag mel na ne moom euh, cant lan de la am lan am ci wér a wér a te cant gii may defit maa ngi nii ci kër bi yëpp noo ko bokk. waaw noo ko bokk moom wax dëgg yàlla. daa daa daa di kenn ku ne daa mënta wax rek. waaw waaye cant gi moom noo ko bokk xam ne ni ngi koy gërëm bu baax a baax. moom xam na ñun ñu xam. te it fi am na loo xam ne kenn du wax lépp. muy man muy keneen. ndax moom xam na man xam naa. am na loo xam ne kenn wax lépp waaye wóor na yàlla. nu mu doon dundeek sëriñ bi. ak nu ko sëriñ bi jàppee woon. moo tax muy dundal jataay bii ba nëgë ni di ci sant sëriñ bi. moo yey nag li tax ma ni moo yey xam na ñun xam nañu. waaw sëñ bi da koo musa woo jox ko barkeelu. am fu ko ber ci ginnaawam. Uh-huh. ma nekk fu sori séen ko xam ne lee dara la. Hmm. kenn woowu uh-huh. ma. fëkk ab bang da wuti sëñ bi.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 هلا من بي مكتيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر